moom mi lay jiite soxna yi nga xamante ne ñooy yëngu ci coppandi lépp luy ñam bàyyeekoo ci géej gi rawatina jën ji nekk fii ci site bi ñuy wax Xelcom ci diwaanu Bargny ci teewaayu député bi jot naa xamle jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy jànkuwanteel ñoom askan wi nekkee ci bile gox toll ci fanweer ak juróomi kilomètre digganteem ak Ndakaaru. ndax noonu waa Bargny rek ñu war a croiser les bras toog di xaar ñu déeb a petit feu parce que li ñuy wax ne toujours lii day rey du koy xëy xëy xëy la mais dina la feebar ni njolmaan la fa nekk si ay maladie kenn xamul nu mu toll boo demee fu mel ni Minam la fa nekk si ay maladie kenn xamul nu mu toll nun ñii les femmes transformatrices lii sëy nun naxat dañu boole suuf si ñuy jël boole ay charbon bu ñu ñuy xëpp boole cendre bu ñu ñuy xëpp boole seeni eaux usées yu dugg si ñun di yàq suñu suñu xaalis yit boole semine ba nga xamante ne fu mu toll mu ngi génn tooke jo nga xam ne kenn xamul fan lay mujj ak waa Bargny ci wàllam moom activiste bi doon itam député Guy Marius Sagna xamle na ni jot naa déglu askan wi rawatina jigéen ñi nga xamante ne bi ñooy yëngu ci wàllu copparndi ñam ñi bàyyeekoo ci géej gi seeni jafe-jafe wante itam seen bëgg-bëgg moom nag dalal na xel yi ne lii dina yegg ba ci gouvernement bu yees bi war nañ déglu yuuxu waa Bargny war nañ déglu tawatu waa Bargny xale yi ñu feebar feebaru noy yi mu ngi leen di ngëpp incha allah euh, fan yii di ñëw gouvernement du Sénégal dina dégg euh, seen yuuxu dina dégg seen naxar dina dégg seen tawat ndaxte euh, man député yoon may na ma ma def li ñuy woowee question écrite ma jébbal bataaxal. Guy Marius Sagna di dalal xelu askan wi nekkee fii ci diwaanu Bargny ne dina leen jàppale ci ni mu waree daaxul sax mën a déposer ab proposition de résolution jëm ci rek taxawal benn commission d'enquête parlementaire muy commission boo xamante ne bi dinañ ci càmbar lépp loo xamante ne ñeel na ci anam wa nga xamante ne bi ci lañu ñu sampee bile centrale à charbon ci gox bile wante itam caxat caxatee suuf gi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku fii ci diwaanu Bargny.